asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yu seen football TV damay am mbégte saa su ne defal leen vidéo mbokk yi euh, di leen remercier seen i xam nga seen i message ak euh, li ngeen partage football ak passion bi tout le temps commentaires yi lu pertinent nga fay gis dama siy jëlee njëriñ sama beneen morom jël si njëriñ donc commentaire c'est très important maa ngi leen siy bu baax a baax. mbokk yi tey damay ñëw wax sur le dossier Noa fatigue benn dossier bu xamante ne sama xel si daloon à 100 pour cent boo may yeewoon di nga guddi nga laaj ma euh, Noa Fadiga day joué Belgique wala day Juifs Sénégal du ma sax débat dama naan loolu moom su ma waajee dama nga dem toog kii day 100 pour cent Sénégal loolu daf ma leeroon à 100 pour cent maintenant dama am ay information yu bees yu xamante ne tey laa ko jot d'ailleurs dama am ay information sur Boubacar Camara Soumaré Amadou Onana donc euh, y a même même Mendy quoi donc c'est ay vidéos différent la xaar la nga si seen bi ay information yu bees yu xamante ne am naa ko euh, vidéo bi leen nag ki ma tax a jóg c'est Noah Fadiga euh, dama am ay information de source sur euh, ku ma xamal ni Noah Fadiga fédération bu Belgique daf ko contacter pour mu ñëw Belgique ndax bool bi ñëpp xam nañ ne Sénégal bëgg a joué yeneen gis day takk brassard vert jaune rouge ay déclaration yu xamante ne papa mu defoon nag muy Khalilou Fadiga di wax ne vous ne serez jamais des Belges bu ne serez jamais des Français message boobu da ko jagleeloon Binous Noy pour wax leen na boo leen mën a joué seen i dëkk origine def leen ko ndax boo leen demee si dëkk yooyu dañu leen mës a considérer comme France dañu leen mës a considérer comme Belgique loolu Khalil Fadiga moo ko waxoon donc man à chaque fois ngeen posé ma question ndax booy dina mën a joué Belgique du ma sax commenter dama naan non loolu moom bu leen ko xalaat c'est comme pas Matar Pape Matar Sarr autant pour moi joué Sénégal noonu laa considéré quoi Sénégalais laa ko teg à 100 pour cent maintenant comme que dafa am double nationalité mën a joué Belgique si information yi xamante ne am na ko dañ ma xamal ni euh, yaayam la ñu gis di waxtaan ak moom pour mu jéem a convaincre non waa mu dem Belgique au lieu Sénégal parce que boobu ba léegi nag euh, Sénégal euh, ñu dara si dossier bi parce que boo xoolee euh, am nañ fi ay problème latéral de droit yu bëri et pourtant Aliou Cissé mos ko convoqué au début on pouvait comprendre lu bëri vu peut-être était pas performant du côté de Hercules muy daaw début saison bi moo tax may wax parce que après dafa dem ba titulaire léegi ren jii titulaire indiscutable la équipe boobu moo ëpp li mu fa joué donc c'est un gars boo xamante ne au niveau de euh, championnat euh, Hollande mo ngi fay wane boppam performant titulaire chaque match du coup tamit xam nga ñun tamit ñu mën a toogee gis né joueur bu baax la wa Belgique tamit ñoo ngi gis loolu xam nañ peut-être ñu bëgg tabaxal tabaxaat Belgique xalé la un joueur bu xamante polyvalent mën la jouer euh, latéral comme mën jouer hmm, kii ailier ailier gauche wala ailier droit très technique performant té li mo waxoon ci benn vidéo genre latéral yi dafa manqué ci football moderne xam nga donc boo leen xoolee si mercato bi dañuy chercher latéral lu bëri ni ñuy chercher attaquant léegi latéraux yi noonu lañ leen chercher parce que dañ leen soxla trop si football donte tas défensif dañ leen soxla euh, côté aspect offensif boobu dañ leen soxla donc vidéo bi dañuy interpeller dañuy alerter fédération sénégalaise de football comme que am nañu ay information dañ leen wax ne suñu waa ji dem leen woo Noah Fadiga musulman équipe nationale du Sénégal xam nga bu njëkkoon sax dañu naan non nañ ko nañ ko boole si 28 yi wala yu demee ne mais bu fekkee mën nañ ko woo mu bokk si euh, mu jouer officiel convaincre leen xamoon noo leen di def mais convaincre leen euh, que souvent am nañu may poser question pourquoi pas en parler à Aliou Cissé incha allah loolu laa leen di wax xam donc loolu moom maa nekk promettre pourquoi pas donc man pour man actuellement dañu war a woo parce que bu fekkee dem nañ ba waa Belgique bëgg koo xam on parle de Belgique quand même ah, xam nga bokk si classement FIFA par rapport ak Sénégal c'est c'est loin xam donc pour dire que ne Belgique bu demee bëgg que ñun la la ñuy wax déjà que booy bi actuellement Sénégal la bëgg jouer

électro yi gis nga ne euh, ñi fi nek ni voilà c'est pas extraordinaire mëna sa euh si fin carrière la gën a nekk si depuis carrière même si 30 ans ñu ko son jeexal yaa ci si sa dolé mo moo ngi Berne euh, Ibrahima Mbaye euh, on a vu que au niveau de mm, Boulogne ci baabi lay toog et tout xam nga c' pas un latéral moderne xam nga si waxuma ne aayul waxuma né manul mais dañu wara am benn ëlëk bu kim sangi Sénégal c'est que sax parfois na gars yi bu ñuy def vidéo dañu wara comprendre né ki di def vidéo mo ngi xalat 2024 moo ngi xalaat 2025 ban équipe la ñu mën a am léegi doo xaar ba deux mille vingt cinq wala ba deux mille xam ñaata nga ne non pourtant a woon naa fa fekk a woo jour bii de fekk jour boobu mu ngi foofu ñu xam ne joueurs am nañ talent ñoo ngi ci yoon pour def carrière tey nga koy wax tey ngay wax ñu woo ko ñëw seulement équipe nationale du Sénégal bés bu ñu ko soxlawaatee nga ñëw en tout cas vidéo bi dañuy comme que am nañu information comme quoi. Euh, fédération euh, Belgique moo ngi contacter jaarale ko si yaayam ñu non woon dinañ vidéo interpeller fédération de football interpeller Aliou Cissé lu ñu man nañ ko def vu que coupe d'Afrique bi ñu jëm dañu wax ne vingt voire 30 jours la ñu wax donc pourquoi pourquoi pas convaincre que ak li ma defoon ci benn vidéo bo amé ñaari latéraux yu xamante ils sont pas compétitifs en club que ça soit Bouna Sarr que ça soit Ibrahima Mbaye pour mon troisième choix bi nga def ko benn benn noa fa di der yàqalul te mën na dem coupe d'Afrique nek surprise noo nga mën a dem coupe d'Afrique comme ñu ko expliqué woon ñaari électro yi comme ko compétitif en club mën nga leen mën nga leen teg ñu gis boobaa nga may benn boy bi 10 minutes benn 15 minutes boy mën a performant et aussi boobaa seulement équipe nationale du Sénégal officiel donc mënatoo ko ñàkk donc vidéo bi vidéo interpellé rek donc mbokk yi xaale yeneen vidéo sur Noah Fadiga sur kii euh, euh, Onana sur euh, Soumaré sur Camara et sur Ferland Mendy ay information yu bees yu xamante ne dafa concerné équipe nationale du Sénégal mbokk i li mën nekkoon vidéo bi ma leen di jaajëfal di wax ba beneen sur Senfootball TV